am ay leeral yu ñu bëggoon a indi rek ci li nga xam ni mooy suñu liggéey jëm ci wàllu commerce ndax jamono moo toll foo xam ni bu yëngu bi bëree ak coow li faw position bi nga nekk nga jëm ko leeral ba mu leer ci ñi ngi ko seetal muy consommateurs yi euh, bi ci jiitu nag mooy li nga xam ni mooy prix yi nga xam ni moo yokku te ñëpp xam ko ñu bari sax dañuy wax ci denrée alimentaire yi waaye ci yu bari la yokko ñu ngi xam ne ni loolu commerçant yi amuñu ci ñoom benn part de responsabilité am na ci yoo xam ni ku nekk xam na ni fañ ko jëlee yokku na fa transport bi yokk na la ca des mooy état ci boppam am na ay taxes yoo xam ne yokk na ko ci ñu bari dégg nañ ko li nga xam ni moom lañ bëgg def pour la euh, maanaam yeesal administration douane ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy dégg ay 12 pour cent ay 3 pour cent euh, te ku ne xam ne ni commerçant moom mënul jaay perte. faaw rek la mu jëndee donte day wàññi sax li mu waroon a am séddoo ko ak consommateur bi nag faaw mu teg ca dara ndax mooy tax mu man faa nekk ba bu ëllëgee ki soxla bu ñëwee fekk fa commerçant bi. kon état ci boppam moo war xool ay solution xool loo xam ne dana ko def pour li nga xam ni mooy coût bi tegu ci askan yi di moins bu waroon a nekk 100 mu nekk 50 wala 30 bu wàññi ko bu woyofal leen waaye commerçant bi moom wax dëgg yàlla lii xew ñun suñu yoon nekku ci. bu dee ci problème mu suukar si tamit loo xam ne amul doo ko gis sur le marché mënta ñàkk a yokk. bu ñu fexe woon ba euh, li ñuy wax euh, indone ak suukar marché bi boo boobaa lii du xew waaye nag bu fekkante ni ñi nga xam ne ñoo yore suukar si boo ko bëggee procédure bi dana def deux semaine trois semaines mu doog a yegg si ceew nga xam ni booy teg euh, suukar si day fekk am ñu ko bëgg lool taxaw loolu nag bu raaree mënta ñàkk a yokk te li état waroon def jël suukar si li ñuy wax ay dipa nga xam ne mooy tax nga mën a importer suukar si indi ko li nga xam ne moom la ci ci fi nekk compagnie sucrière euh, def nga xam ne moom lay produire gab bi ci des nga xam ne dañ ko da ko war a importer ñu jël ko jox ko commerçant yi ci association yi assise ngi fi yeneen organisation ngi fi bu boobaa buñ leen ko joxee ñu xool leen fii 6 mois 8 mois ñu évaluer leen ba xam ñoom suukar dina am wala du am bu boobaa nag lañ ñin mën a xam ku nekk na nga def waaye ñu ko jëlee nag jox ko kenn mu monopoliser ko te li muy produire di ko bay ñu jël ci joxaat ko leneen ñi ko yaa koy importé nag wax dëgg yàlla nag li wolof di wax mën nañ sut jël fépp jël féfér da ngay yem ci li ngay li nga xam ne mënu ko produire nga bàyyee ko doomi réew mi ñi ci des ñu xool ba xam seen doomi ñu jéem koo indi bu boobaa jàpp naa ne sax prix bi muy jar depuis des années dana gën a mën a wàññeeku waaye nag ko jëlee jox kenn rek mu occupé ko euh, lii mu xew rek mooy xew même bu ñu ko réglé tayit bu ëllëgee leneen day xewaat beneen bi ci desit euh, ñu jàll ci muy li nga xam ne moom la ñuy tuddee Hmm, concurrence étrangère déloyale mooy jongante wala jéem a commerce ci loo xam ne teguwul ci yoon te ku ne xam na ni at yi indien yi turki yi yi ñëpp ñi ngi daw wutal si Sénégal ba ñu ñu dee ñu fi ñëw ndax ñu dañuy dem ci ñoom waaye nag état ci Sénégal ci boppam li mu war a njëkk a def mooy protéger ay commerçants ba ñoom du ñu fay ñuy exister bu baax parce que bis bu ñu demee ba ñii ñuy def jaar nañ ay réew yu bari xam nañ la fa xew ba ñu fa jógee mën nañ ñëw de ci début bi gën noo yombale te sox du gën a yombale ndax ñun buñ dee jaay rulu ci tiisi lay jël exemple ne la 100 yar la 100 lay doon bu nee la 50 lay doon waaye ñoom buñ nee la 100 yar la mën na doon 80 wala na doon 85 loolu du gën a yombale mais nag nit ki du ko seetlu te itamit protection ba leen seen réew protégé pour ñu mën a ñëw fii doxal li ñuy doxal suñu réew bu ñu ko defalee genn wàll ga rek daa ñu mën lu ëpp lu ñu man te bis bu ñu fi defee desee nag ak consommateur yi Sénégal yi ñoom kese nag yore commerce bi ñeneen ñi fay bu boobaa lu ñu doon jaay fukk daañu ko jaay fukk ak juróom-benn wala fukk ak juróom-ñett bu boobaa nag diggante coow lay doon rek loo xam ne lu dul jeex lay doon kon ñoo ngi ñaan état te loo xam ne sax suñu droit la mu protéger ay doomi réewam taxes yi nga xam ne mën na ko dindi mu dindi ko ñi nga xam ne dañuy ñëw di commerce nag te commerce bi nag àndut ak sarti Sénégal mu teel leen a xamal fi ñuy yem ba nga xam ne dinañ mën a ànd ak ñoom commerce te kenn du lor sa morom waaye nag ñoom fi mu ne nii bu ñu waxee dëgg rek ñu ngi ñuy lor bu baax a baax te lor jooju du mujjee fenn fudul ci askan wi parce que man mii commerçant la mais consommateur la parce que bu ma dee jaay tisit jaayu ma meew jaayu ma suukar jaayu ma leneen ñëpp kon la beneen bi te moom laay jeexale tamit muy lu jëm ci wàllu Auchan ku ne dégg na ni coow li fan yi bari na ci diggante Auchan ak Touba. Euh, ACIS nag association des commerçants industriels du Sénégal muy xamle ni mbir moom Auchan mu toog fi ak mu jóge fi ñun suñu yoon nekku ci. fii dëkku Serigne bi la Serigne Mountakha moo fi nekkal Serigne Touba kum ni duggal yaay dugg kum ni toogal yaay toog kum ni bul dugg doo dugg kum ni bul toog doo toog. boo ñëwee nag ba toog ba war a def commerce te sàmmonte ak droit commerce yi nga xam ne la yoonu Sénégal teg. bu boobaa ñun amuñu ci problème xanaa nga wàcc ko boo ko wàccee nag bëgg a def leneen bu boobaa daanu jog taxaw ndax nag Serigne Saliou daana wax naan mbir nag borom ma koy saytul boppam te nit nag lii nag noo ko moom waaye nag duggal a génnal moom kooku assis mi ngi ciy débarqué wu totalement yoonam nekku ci ku mën a jël initiative wala mu wax mooy porte parole assis wala mu wax ci turu kaddu genn commerçant gu jëm ci assis ñun suñu yoon nekku ci te jàpp naa ne fii ci Touba li ëpp ci commerçant yi ñi ngi tënku ci assis kon assis lii mooy position ci Auchan lu sëriñ bi wax la ñu wax lu mu waxul waxul loola waxuñu loola ki jiite Auchan waran fee représenté it la wax dégg nañ ko teg na ko ci yar ak teggin yar ak teggin boobee akuk taalibe googu ca loolee lan ne luñ jàpp de ñun bu ñu sëriñ bi ne bàyyi leen ko dañ koy bàyyi kon na xanaa kuy def loolu doo nekk naan dugal bul dugal bul toog kon assise yoonam nekku ci na leer naññi néewut waaw néewut déet li sëñ bi wax la wax lu sëñ bi waxul waxu ko amaa nag ku dugg nag ba war a def commerce nag te sàmmunteew sarte commerce boobaa la cay responsabilité am dana ko jël ci voie légal yi nga xam ne la moom la ko yoonu Sénégal may bu màggalu Touba jubee fii di commune Touba oto yi jógee ci biti di indi ay marchandises am na taxes yu ñu teg bu ñuy dugg si am na lu ñu leen di fayloo loolu nag jàpp naa at yëpp commerçant yaa ngi koy jàmbat muy seer goo xam ne xaw na koo seer ak bari gum bari. Ah, bañuñu ko parce que kuy commerce da nga war a fay ñun xam nañu dañu war fay parce que Sénégal ak commune la ñuy dundee waaye nag bëgg nañ ñu waxtaan ci nag bu baax ba xool nuñ koy doxalee ba nga xam ni sëlludu yooyu giiru dem neen. ñu fay li ñu war a fay képp koo xam ne am nga oto muy ñëw di ñëwaat muy bu xëyee ngoon ñëw bu xëyee bu subaa ñëwaat di fayaat. ñu jël matricule oto bi bu fayee benn yoon mu bañatee fayati loolu lépp nag ci waxtaan lay tegu kon ñoo ngi woo monsieur le mu woo ñu ñu waxtaan ak moom ci loolu ba teg ko ci lu leer naññ ba ñu ñu fay taxi encore une fois dama koy wax parce que commerçant toujours dañ leen di dañoo bañ a fay déedéet ñun li ëpp ci économie réew mi ñoo ko yor buñ fayutoon du demee nii kon nangu nañoo fay waaye li ñuy fayit nay dellu si ci askan wi di dellu si ci ñun loolu mooy tax mu jaar yoon. assise association nationale de commerçant et industriels du Sénégal mi ngi leen di lancer un alerte pour ce qui concerne maanaam les produits maanaam prohibés yi nga xamante ne maanaam dañ leen tere ak yi nga xamante ne seen date seen date d'expiration tamit dafa jeex. wala mu nekk tamit loo xamante ne dafa jige comme ñun ñëpp ay taalibe yi borom Tuuba lañ nañ ci góorgóorlu ñun ñëpp ñu maase si ba ku ci nekk maanaam def yëf sa yëf bopp ba bépp produit boo xamante ne bu permis la nga bañ ko dugal koo xamante ne si moom daf la koy jaay tamit nga signalé ko nga ni ko a teral parce que nekk ñun ñu nekk ci liggéey nit ñoo xamante ni dañuy profité ci màggal Touba jóge à l'étranger duñ waxee à l'étranger mooy peut-être ñu nekkul biir Touba di indi Touba xamante ni périmé la ñu koy jiiñaat commerçant groupement yi nga xamante ni si ñoom ñoo nekk Touba comme nag dañu nekk ci benn association mu nekk kuréel goo xamante ni c'est organisé muy assise association nationale des commerçants et industriels du Sénégal moo tax ñu leen di lancer alerte ñu jàppale ñu ci côté boobu parce tamit ñoom du ñun kon nag lépp lu ci waay di bëgg wula nga ko ci yaakaar ci loolu wax dëgg yàlla ngir yàlla ngir jëmmi sëñ bi ñi ngi lay ñaan loolu ñu teg ko ci suuf parce loolu nekkul